machine yi nag. non tubaarkàlla ñu hmm. kay hmm, dëgg dëgg kii ñun artisan yëpp sigil nañu ah. Hmm. ñun artisan yëpp sigil nañu parce que lii nii. Euh, dina yombal euh, ñu bàyyi jur bi nga xamante dañ leen sonal ci mbay mi. ba pare bokk na ci li nga xamante ni dina yokk économie Sénégal encore. xalaat bi artisan yi war nañ ci gën a sukkandi xam ne artisan rek moo mën a yore mbir rawatina nag euh, li nga xamante ni bon ko bi nga gisee moom waaw mooy loolu mooy pour nga xam li nga xam li ngay bay boo mu jógee bay quoi waaw lii sax doo këddew da ngay da invention am Abdou Diop man si ma taali pomme basket. barkalla ñu kay dëgg dëgg kii ñun artisan yëpp sigil nañu ah. ñun artisan yëpp sigil nañu. parce que li nii. dina yombal ñu bàyyi jur gi nga xamante dañ leen sonal ci mbay mi. ba pare bokk na ci li nga xamante ni dina yokk économie Sénégal encore. parce que xalaat bi artisan yi mhm. war nañ ci gën a sukkandi xam ne mhm. artisan rek moo mën a yorum réew rawatina nag euh, li nga xamante ni bon mooy liggéey bi mu ci ay bii daal rafet nañ ko